ànd ak Alioune Sarr ñu ngi nii toog Bachirou Gaye nekk fii ci Touba fa tabaarakallaahu di responsable ñoom ñoo ko seq ak moom ñoon Mbay Siis ñoon Waseynu Siis ñoom Fay ñoon Mbay Seen ñii ñooy ñi nga xam ni ay nit lañu yu ànd ak moom di madam madame Seydi Ramatulaay nday mbeng fa tabaarakallaahu ñoom day juuf mati kooña ak ñi nu àndal ñëpp waaye man nag sama diggante ak Alioune du politique ba ñuy tuut yàlla booleel dara umpule yit ci li may wax waaye fa dhakkir fa nafaati dikra waaye xam gu xam sama digganteeg Touba xam gu mu xam sama digganteeg këru diine ji moo tax lu mu ciy def mu di ko jaarale ci man ngir ma ñëw teewal ko ci jooju la jotaay waaye ma bég lool nag Ablaye Mbaye Peex Alaaji Ablaye ci bu ma yebalee ci lu jëm ci sëriñ Bachiru Abdul Qadir maanaam lu dal ci Alioune Sarr taxaw na barki démb bi way juram wàccee liggéey jëfam ak i ndawam ak ñaanam lépp maa ko recevoir amul dara dara dara luy dal ci Alioune Sarr du bànneex du safaan te du Cheikh Mouhamadul Bachir taxaw na kon Mbàkke ali nee na mi ngi lay ndokkeel ci sa bisu maam bii di la sant la yàlla li sa maam ni woon damay wax ni ñu bëri dañoo dem ba ñëw am ndam di sant waaye samaam bi muy dem la xam ne day am ndam xarajtu yowma sabti li xidmatil Moustapha wóor na ko ni thamina achara fi jahril muharram maa ngi dem liggéey liggéeyali yonent bi waaye jëli ndam indi ko kon ndam lii loolu le mi ngi la ci ndokkeel di la sant la yàlla di ñaan nga dolli ko ñaanal ndaw la mi ngi ci gouvernement mi ngi ànd ak baayam président Moustapha Niass mi nga ànd ak président Macky ci bennoo waaye moo ngi dolli di sakku ñaan nga ñaanalal ko baayam boobule ñaanalal ko seen ànd bii li nu ci yéene ci réew mi yàlla na ko àggaleeg sago ne sëriñ bi ne yow da ngay wëllëreem lépp lu lu xew kees yaag Ahmed Saloum Dieng ngeen àndandoo bari na lu may dajeeg yéen ci biir kees te yéen a fay teewal Cheikh Mamadou Bachir kon lim la ni mënoon ngaa wax tontul sa bopp mooy lii mu la wax mu sant la bu baax. sant ministre bii ndax Alioune Sarr day yar ak i teggin la sëñ bi xam ci moom keroog ba mu wàcceeb liggéey mu yónnee fay teraanga la mu ko defal diggantee digganteem ak ma ak ñaanal ko yàlla moo ëpp doole loolu te loola nag kenn mayu ko waajuram woowee ku dul Alioune yar ak i teggin la sëriñ bi xam ci moom nee na màggaluk sëriñ Tuubaa gi it fu mu at mu ñëwee mu ànd moom ba màggal gi jeex kon li sëñ bi deele ci ñëw leen sant le ma yàlla yàlla na ci am ba doyal bu nu santee ba yàlla delloo ko ngërëm di yàlla bu ko ci kenn ëppale yaa ngi ñi nga àndal ñëpp di rafet lu teewaayu Bassirou Gaye mi ndax dafa nekk ak ñoom Touba waaye sëriñ bi nee na moom de ku am yëg la bari na nga xëy suba ba ngoon te fekkoo ko kër sëñ Bass Abdou Khadir bari sëriñ bi nee na kon mi ngi koy sant di ko teg ca loxo di wax ne Alioune na dal xelam sëriñ Saliou Mbacké baayam bu baax ba daana wax màggalu ñaar bu ñu dendee kenn ki di ko màggal kenn ki di ko màggalu ko bu weer wi del see déwén daañu xam ka doon màggal mooy kan moom nag ministre Alioune Sarr ànd naag sëriñ bi màggal gi ci ndigalal nag Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax fa ngeen jógee te képp bu ngeen fa yemoon rek sëriñ bi nee na doy na waaye ñëw gi ngeen ñëw ci moom nag day fedd li wëllëre wi ak yéene ji ni ak nag ni Alioune demee ci moom waaye nu Alioune Sarr demee ci moom nang ko seereel ni ko Cheikh Mamadou Bachir ni mu demee ci moom moo ko raw ndax moom bu jàppee du bàyyi waajuróom wa tedd wa Cheikh Abdoul Khadir dafa waxoon ni wala leen tekku mat wala rek xam ngeen nu mu mel ñu nu ko déedéet mu ne boo jàppee mu jàpp soo bàyyee mu jàpp moom du bàyyi loolu nag muy jukkoom kon moom jàpp na Alioune te xam na ne Alioune du ko bàyyi waaye moom it du bàyyi Alioune gërëm bu bu baax suñu jigéenu bopp bii di Ramatulaay di jàmbaar yéen ngeen ànd ak moom ñëw ngeen jàppale ko waaye seereel ni daal sëriñ Idrissa Gaye foo nekk te Cheikh Mamadou Bassirou nekk fa mën ngaa wax ci turam fu mu toog nga toog bu ñu waxee ba pare mën nga leen a tontu kon sëñ bi nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen amin amin amin amin Mbacké donc man la Bassirou Gaye day àndoon ak euh, la délégation du ministre Alioune ñu ñëwoon doon ziar si ci xalif général de Mourides jaar ko ci le porte parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ñi nga xam ne tey ñoo taxaw ni ci suma wet c'est le cabinet du ministre Alioune Sarr ànd ak responsable politique yëpp tête de de file bi nag nekkoon imam Idrissa gay ak madame Sey Rama euh, mu ñëwoon tey ji doon indi ab ziaram doon feddliwaale kóllëreem ci digganteem ak sëriñ basiru Mbacké Abdou Khadre ndax ku xam diggante sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre ak la ministre Alioune Sarr xam ni diggante bu yàgg la mu bokk ak moom nag bis bi muy bisu sant jàpp ni moom ci digganteem ak sëriñ basiru tey fi Cheikh Bass nekk moom moo fa waroon a toog ni Cheikh bas di dalale gan ñi moom it mu dalale noonu gan ñi waaye ku ne xam na ni ministre Alioune Sarr it dafa yor ay mission moo waral bi ko liggéey réew mi tënkee mu ne kon moom na jiital ab ziyaaram jiital ak ñaanam à l'endroit de la communauté mouride pour que màggal bi mën a am ci jàmm ci biir loolu nag muy ñaan la population sénégalaise que ñu xam ni kuy wut si ak ñaan nanga ko def ci dal na nga ko def ci tey te xam ni ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm li nga fi sàkku ci ñaan mën a am pour Sénégal loolu képp moo taxoon a jug. mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar jàmm rek moo fi xaj te dama jàpp ni fal un président de la république xañ ko assemblée nationale ba mooy solal nit tubéy ju amul ceinture kon dey rugeeku te engagement bi nga xam ni moom la la président Macky Sall am pour le Sénégal détermination bi nga xam ni moo nekk ci moom pour le Sénégal ànd ko ak tous les membres de son gouvernement y compris le ministre Alioune mi nga xam ni daf ci yor un département phare muy le ministre de tourisme et des transports aériens jàpp naa ne ñoom ñu am yaakaar lu dul que nii député yi nga xam ne ñoom ñoo war a voter le bureau de l'Assemblée nationale lundi prochain danañu am conscience bu toll ne xam ne Sénégal les lendemains de ce pays là mu ngi nekk entre leurs mains et que pour ne la Sénégal à bon port jàpp naa ne da ngay ànd ak nit ki nga xam ni jàmm ko tax a jóg lu amal njariñ Sénégal a ko tax a jóg mais lu may ñëpp it ñu mën a dund dans la paix dans la tranquillité moo ko tax a jóg te kenn mënta romb koo ku dul président Macky Sall mu ànd nag ak xaritam frère am un responsable digne un ministre boo xam ne tey ku ko gis li ngay njëkk a wax mooy ku yaru ki jàpp naa ne ñu mel noonu mun mënuñu def lu dul compiler seeni force seeni idée seen engagement seen détermination comme je l'ai dit tout à l'heure pour amener le Sénégal à bon port te am nañ ci rafet njort que ni incha allahu rabbi lundi je ne dirai pas que la coalition Wallu ou Yewwi mais tous les députés du Sénégal je dis bien tous les députés du Sénégal von voter un seul président de l'Assemblée nationale avec deux groupes parlementaires pour ne pas se dédire ndax it bu leen fàtte ni tey ñi nga xam ne ñoo fi nekk nekk ay populistes et je dis bien c'est des populistes un populiste nag kenn du ko weccoo ak koo xam ne liggéey ko tax a jóg ñoom ñoo fi waxoon ni il faut que ñu réduire le train de vie de l'État comment peut-on réduire le train de vie de l'État en créant d'autres groupes parlementaires ce que veut dire que ni c'est des responsables yoo xam ni mën nañ leen tuddee de responsables vertu de mensonge qui ne pensent qu'à leur propre intérêt c'est des gens qui sont obnubilés par le pouvoir mais le pouvoir les Sénégalais xam nañ kan lañ koy confier kan lañ confier seen destinée réew et mënul ne kenn ku dul taalube Serigne Touba bi nga xam ne ñu ngi koy xaar suba je la nommer le président Macky ci engagement boobu la ñu nekk ci la ñuy taxaw incha allahu rabbi ba lëndi ak jàmm lépp dana leer jërëjëf.